weekend bi noppalu koo. léegi damay noppalu de. mbay weekend bi tooguloo. Oh, mbay. weekend bii toogoo. Oh, weekend bii tooguloo. léegi mbay. Ah. si bopp dafa indi. dentigel. dentigel bi. à base de menthe la. fraîcheur menthe. gémmiñ gu set ba ñu weex. non mant la boo ko ci defee da ngay sentir na sa gémmin xet gu neex gu ànd ak mante boo ci génn ba pare sedd guy waaw si boobu nag moo ko indi muy haleine fraîche menthe fraîche waaw soo ko ci defee jeex na mbay yow yaa na ma carrément temps yi sa teint bi nga yor teint wu caramel la ak teint wu fraise mais xanaa mbay da naan ci l'écran bi waaw yàq bu dëgër laa moo taxit feeñ na teew mbay ah. am na ku ne ma mbay ndax day sangoo saabu mën a ko déedéet ndax day diw mën a ko déedéet eh. mbay lu muy naan ma a ko xanaa l'écran lay naan bu ànd ak boo xam ne caramel ak fraise tey nag cocktail nga yor gisoo ni nga mel ne yaa ngi brillé très bien ah, ah. très bien mbay madaar sa yëre bu tilimee waaw madaar liquide bu sa kër once

bii moo gën a gaaw yow yow may yow da ngay yow man xam naa ne ñaar dina am di nga mos a rey sa bopp ci loo xamul ndax doo laajte mais léegi nag kumpa jeex na jetol bi boo daggee immédiatement moo koy arrêté mbay fan nga nekkoon weekend bi si Pape Diouf laa ah, dem ah. si sees xaw ah. toog naa seen bi seen bi di yëngu di yëngu di yëngu laa mais ba pare nag Moussa Diama xam naa woowu kaw la jël ci wàllu ñu dem gën a ah kon yow dem nga fii dem nga fee. waaw waaw gis ko. yow dama laa mbay la. mbay mbay mbay naa fi nga féete mbay dem nga fii dem nga fële. te da nga ma waxoon ne fenn rek dem. si si si si si sabar bi nekk ci Wally Seck mbay si sa xarit la bi nga amee problème mbay si moo woote wax ak man mbay kon daal yow fan nga demoon Barça wa Real dem nga Real dem nga Barça. waaw loolu yëpp ban message la en direct lan noonu. lii fu mu lan. ah Kia. Kia. ah ah, ah waa kii fu mu jógee. da nga ko nopp kii yaa ah, kaay kaay kaay kaay mu may la ko kaay. kaay dama la koy may kaay kaay kaay taxaw de. ضريحة لروض القطب ذات أبو الفيض الإلهي أبو العباس أبو العباس mbokk yi am nañu mbégte ak contentement bu mag euh, di euh, nuyu tamit euh, képp koo xam ne teew nga fi tey waaye tamit di ànd ak sponsor yi nga xam ne mooy Sivop indi danti gel bi nga xam ne nag ak Euh, bi euh, ànd ak pat bi nga xam ne dafa ànd ak fraîcheur de menthe ñu ànd ci euh, sponsor mag bi di l'écran ci caramel ak bi nga xam ne mooy fraise ak pitache bi ñëw nag tamit ci madaar bi nga xam ne liquide ak omo ak bi nga xam ne mooy jetol jetol nag dafa baax ndax xam ngeen ne boo daggee boo ko sotee immédiatement da koy arrêté day rey ay picc waaye tamit microbe xet gu neex ci douche da koy dàq ba pare xeeñal ko xeeñ bu am solo mbokk yi tamit euh, ñuy nuyu bu baax euh, présence su euh, suñu xarit bi nga xam ne mooy Marguerite yaay Mbodj di soxnay benn benn moom mooy kii joué rôle Karim Wade bi tey nag soxnaam dafa ñëw tey seetaan si émission Kouthia Show ñu nuyu tamit de passage Kia Diop nekk ca Mbour moom tamit tey dafa ñëw seetaan émission Kouthia ndax spectacle la boo xam ne nag wax dëgg yàlla ñëw di ko seetaan am na solo ñu ngi leen di remercier bu baax Marguerite yaay Mbodj di madame benn benn nag moom mooy kii joué rôle Karim Wade bi soxnaam moo fu ñëw tey seetaan si émission Kouthia ak euh, Kia Diop nekk ca Mbour moom tamit moom bi mooy ki fo ki ki euh, foon léegi mbay mbay crise ba léegi nag mbay ñu koy rawale xaw ma ndax suba dina ñoo am déet mais jàppale na daal mbay daanu na crise te ay mbokkam xam naa ne bu ñu ko bëggee gis nañu dem seet euh, ci dispensaire bi gën a jege fii mbokk yi nag ñuy nuyu bu baax kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi sur l'égide et la bénédiction de tous les khalifes généraux Serigne Mountakha Bassirou Mbacké khalife général des sama xarit suñu soppe khalife général des Tidianes ñu ngi koy nuyu Serigne Cheikh Jëmba xarit général des Baye Fall Serigne Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des ak ki nga xam ne mooy Serigne Mame Bou Mohamed Kounta xalif général des Khadr ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalif bu Medina Baye Serigne Cheikh Tidiane Seck xalif bu Djenaba Thierno Bachir Tall xalif Omarien ak Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass Lawana Niassène ak Chérif Bounama Aydara xalif bu Nimzat ak Serigne Mohamed Lamine Ngom Thiapala Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass ca Daka ba Serigne Youssoufa bu Mame Cheikh Mbaye ca Louga bu Pire ak Serigne Mame Abdou Dramé Abdou Cissé xalif bu Jamal ak Thierno Madani Tall xalif Thierno Muntaga Tall ak njabootu Cheikh Moussa Camara euh, di nuyu tamit Serigne Muniru Jégéen xalif euh, njabootu Serigne Amadou Baro Jégéen yëpp waaye di nuyu sama papa bopp personnellement di ko euh, Cerno Bachir Tall ca Louga ak Serigne Fallou Mbacke docteur jëwriñ Moustapha Sène Serigne Fallou Mbacke docteur ñu ngi koy nuyu ak mboolem taalibeem da ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram docteur ci Zahir ak ci baatin alaaji Cerno Sama Sama Morabi ziar nañ ko alaaji Cerno Abdourahmane Bari ca Bogol Cerno Hamdou Wan Bari ziar nañ ko Cerno Bokar Alpha Ba war a fonde sama papa la Cerno Mamadou Adama Gaye ca Ñanke Edi alaaji Mouhamadou Gaye Mbour Tefesk ñu ngi koy euh, euh, nuyu di ko ziare tamit di ko ndokkale ci bésam bu mag xam ne moom la amoon la 5 euh, mai bi ba ñu koy wax waxtaanee foofu ca Mbour alaaji Ousmane Ndiaye waaliw Kaamin ak soxnam ajaratu Mame Bousso Cissé si HLM Angle Mousse Serigne Mame Sougou Waadaan ca Kébémer Serigne alaaji Seydou Sow sopp Serigne Fallou dëkk ca Passy ñu ngi koy ziar ak Serigne Habib Gueye muaddamu Serigne Mansour Sy Serigne Abdou Karim Mbacke ca Ndindi Serigne Abdou Karim euh, ko ci groupe Kouthia Show moom nag euh, doomu Serigne Fallou bi wax dëgg yàlla nee na bi mu am ci émission bi ak nit ñi xamoon wax dëgg yàlla heure bi bu jotee jàllee ñëppay toog di ko seetaan ndax kaf nga ci ree nga ci waaye jàngat nga ci ñu koy delloo njukkal boobu nga xam ne daf ñu ko delloo euh, ci ay biir nit yoo xam ne ñun tooguñu nga ci ay kanamu journaliste ku ci mel ne ak wér euh, gu Benjamin Ndiaye yi nga xam ne ñu nekk ci jàngu bi yal na defal lépp lu ñu bëgg may fan bu gudd ak wér ci barke barke Yesu Christ sa bi nga xam ne mooy borom xel mu sell mi communion yi amoon ci réew mi ñëpp wax dëgg yàlla mu nekk communion yoo xam ne tey euh, dëkk bi yëpp wax dëgg yàlla démba gis nañu nekkin xam ne nag moom la sénégalais ak euh, nu euh, yàlla na a góor góoram nekk ci réew mi di ci yeewoo maître Fatima Fall responsable politique nekk ca PDS di suñu marraine la ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram sëriñ Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Budi ak soxnam Adja Kinisi Tidiane si almaxtum sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si almaxtum nag ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko ci àjjana yu gën a kawe yokku leeram ak sëriñ Babacar Abdoul Aziz si yal na yàlla guddal fanam Thierno Mouhamadou Aw ñu ngi ak wér gu yaram Chérif Khoutoub Aïdara ca West Foire ak sëriñ Ibrahima Kounta ziar nañ ko di am mbégte contentement ci imam ratib Thierno Aliou Banjul ak sama yaay ajaratu Daaro Cissé alaaji koy nuyu bu di ko ñaanal fan bu gudd ak euh, wér gu yaram ah koy nuyu Pape Amad Ndiaye di daal bu juma sëñ Babacar si moom tamit ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram alaaji Mohamadou Sall xalif bu Dimisxa ziar nañ ko ak alaaji Cerno Baabu Nuuru li bu daaree xale bi di ziar tamit alaaji Karamba Dimba Jaabi Gasama yàlla ko yàlla xara ci àjjana gën a kawe waaliyu kaamin la woon waaye tamit ñuy nuyu sëtam bii di imam Xaasum Jaabi dëkk ci dëkk bu ñu naan ca Casamance ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram imam Moustapha Sall président forum intellectuel africain ñu ngi koy ziar ak waaliyu kaamin bii di Euh, Matar Ka ak suñu yaay yaay Aïcha Sow umul xaarifiina di ko ñaana fon bu gudd ak wér-gu-yaram nekk ca golfe sud ñu nuyu tamit Cheikh Ibrahima Diop le médiateur social taalibe Serigne tuba ak Serigne Abdou Khoudous euh, Serigne Abdou Rasoul Jigal nekk ca Bargny euh, yaay Ami Kandji ca Ndar bu ndaw ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit góor gi Samba Ndiaye imam la ca Ziguinchor président des imams yi nekk ca président des arabisans yi nekk ca Ziguinchor représentant famille Seydi Hadj Malick Sy rabbi taala anu sa Ziguinchor góor gi daal yal na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu ko dëgg wér gu yaram Serigne Fallou Mbacke docteur ñu koy santaat ak soxna Aïda Sy ca Tiwaawan soxna Maam Faati Mbacke ak Serigne Bassirou euh, Fall alxuraan Serigne Gedde Mbacke ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram kilifa diine yi daal yal na yàlla defal jàmm may leen fan bu gudd ak wér gu yaram ndax ñoom ñoo ñuy gind ci yoon bii ñu nekk muy yoonu lislaam ak ci bépp tarixa ak ci bépp diine yàlla na leen yàlla defal jàmm may leen fan bu gudd ak wér gu yaram ñi nga xam ne ñoo fi nekk yàlla jàmmal leen yàggal leen fi ñi nga xam ne ñoo dudd àdduna nag yàlla na yàlla xara ci àjjana gën a ndax ñii ñooy suñu man da ñii laa man man daal ñii laa xam ne moom <laughs> ñoom daal ñoom yàlla na leen yàlla defal jàmm ñii daal seen ñaam mooy wàcc ci yow wàcc sa njaboot ñii daal ñoo jara ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg lool lool lool lool suñu kanam te yàlla sàmm leen yàlla yàlla defal jàmm léegi nag xam nga fu ñu jëm dañuy dem seeti Macky Sall ak robinet bi ndox mi manqué ci dëkk bi fan yi ku dugg tataa ah. te yoroo parfum billahi xet dana la rey dama ne fan yii ku dugg tataa jàpp ci kaw wara a Dakar dem dikk te yoroo parfum xet dana la lu leer laa leen wax juróomi fan am na ñoo xam ne laalu ñu ndox am na ñoo xam ne galax ndukuñu dëkk bi nag instant bii nii dajaloo bu metti bu amee ku yeboo tas sa bakkan ndax dëkk baa ngi gilli ñu seeti Macky Sall ak soxnaam ban solution lañu am ci ndoxum bi nga xam ne magadi ci biir dëkk ba ñu koy jàmmat Macky jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi leen kenn ku nekk sa tur ak sa sant barke demba laa taal rajo bi dégg ñoom Malick Gakou ñuy wax wax yoo xam ne yéen wul maanaa sénégalais kenn gënu koo set ak lu ndox manqué manqué manqué sénégalais bu xëy dina sangu dana jàpp ba pare boole ci dana xeeñ parfum bu neex kon bu ñu bëggee jël ndox bi nga xam ne moom manque di ko bëgg wax ne Sénégal ngi xeeñ mel na que ñun amuñu ndox bu ñu war a mën a sangoo dama ne loolu mooy jéem a jaxase xel yi ak jéem a dëpp carte gi ci àdduna bi ba mu daj ndar këpp Sénégal rek mooy dëkk boo xam ne boo toogee benn fan sangoo da ngay rus a génn ndax kersa ay poxotaan fii lay nekk ay poqotaan fii la kon bu sa poqotaan demee bay xeeñ sénégalais set na set boo xam ne bu ko neexee jël coton daal di bombu daal di ko ciy bombaat daal di ko ciy joos daal di ba pare sànn ci tout parfum bu rombee kenn du xam ndax sangu na war a sangu li am solo mooy set si sa xel Youssou Ndour woy na ko woy na ko dama ne ñun Sénégal mënuñu toog dëkk boo xam ne Sénégal mar naan sangu ko gënal di gis koo xam ne day mar bay bëgg a dee mais bu sangul du mun a génn kon opposition bi fi ngeen jàpp yaakaar ne mun ngeen yàq sama politique yéen a ngi juum ndax loolu du yoon mais ndox mi manqué c'est parce que c'est un problème de réseau canalisation yi ak forage yi defaraat la mais du question dañuy jéem a tëj Sénégalais yi seen kër pour ñu dem rooti affaire root moo xewi moo xewi sama soxna bi ma ko waxee na robinet dafay tëj wax naa leen moom yoonam nekkul ci gouvernement mais dafa am action bu mu def mooy rafetlu wax dëgg yàlla di ko rafetlu bu baax su paree wax kàddum dinaa leen wax solution bi nga xam ne bu robinet tëjatee ngeen def ko su ko defee sénégalais kenn du am buntu boo xam ne dinañ jéem a yàq politique bi nga xam ne moom laa def salaamaaleykum maa ngi nuyoo di leen fay sunu militants yi ndax yéen kenn du yéen fu ñu dem fu nekk rekk fekk leen fa ngeen teer ñu seen teeru bu rafet monsieur fay nag yore wàllu ndox mi nekk ci defar ak defaraat Mansour bi mu xoolee xam ni ndox mi am na kii ñu war see nekk defar ko pour ñeneen ak ñeneen mën a jot ci ndox mi waaye buñ ko defaree ba pare ndox mi gën a sell moom ngeen di gis dama ne fondation servir le Sénégal tey lu mu indi servir Sénégal moo ñu tax a jóg damay servir ndox partout dans le monde dans le Sénégal nelaw na la fa fekk maa ngi wala ngaan ñépp root kenn du ànd ak kenn du ànd ndigg kenn ànd ak leen ndax man yéen a ma tax a jóg kii yéen la bëgg jërëjëf jërëjëf soo gisee maram li mu wax nii dafa am solo parce que jigéen ñi war nañu war xewi ay root ay ndox mais ça veut dire que dafa ñoo xam ne bu ñu gisee problème am wala ñu ut solution dañuy taxaw di jéem a indi problème bu gën a yaatu problème boobu mais dama loo l'eau est incolore et inodore dama ne xanaa xamu leen ndoxu fosse yi nga xam ne mooy génn ci fosse yi soo ko jëlee nga baxal ko ba mu buyee a quatre-vingt-dix bu nekkoon ci ndox mu yëpp dafay dem danga koy segg seggal rek teg ko mu asu micro bi nekk ci suuf fekk dee na am loo xam ne nit ñi ñoo koy bëgg a jaxase mais ndox bi nga xam ne mooy ndoxu teen ak ndox yi nga xam ne mooy ndoxu sayaan soo ko jëlee nga daal di koy baxal quatre ndox mi ci boppam lépp lu doon microbe day jaare foofu daal di dee. kon Sénégal ñu foo xam ne dañ naan robinet dafa manqué ndox dafa manqué ba nit ñi amuñu lu ñu naan problème de réparation la pour wan na Sénégalais yi man bëgg naa leen fonk naa leen tey ci guddi bu soobee ci kanamu Sénégalais yëpp journal télévisé danaa dem ngaccalu ci foos yi jël ndox mi ñu baxal ko segg ko ngeen gis ma def ci njar def ci ataaya galandu ko ci naan ci sanguti waaw ma togg ci sax cere man

Papa Samba Thiam laa leen di moo moo nekk ci réalisation bi di leen nettali ne toog moo toog ci euh, son bi di leen nettali ne yaaw gerbe ak seen jili ñoo seq ñaari caméra di ñaari jëmm mbokk yi nag ñuy am mbégte contentement sponsor yi ñu ànd ak di danti euh, gel bi nga xam ne nag baax na ci haleine fraîche leeral ay bëñ ba pare dëgëral ko l'écran bi xam ngeen ne ñu ngi waajal koor gi baax na ci euh, goûter yi baax na tamit ci xëdd gi ak tamit ci ndogal yi ndax biir bi dina mën a téye lu dëgër ndax vitamine D la te am na solo madaar tamit xam ngeen ne mbokk yi moom mooy setal kër gi di ko leeral waaye tamit euh, jetol bi nga xam ne ñëpp nee nañu dafa gaaw boo daggee sotti ko ci sa fi nga dagg mu arrêté immédiatement am na solo trop daayira Fityaanu Siddiqin de ginnaaw raay euh, ki nga xam ne mooy euh, Baye Cheikh Fodé Diakhaté nee na nag mu ngi gërëm autorités yi nga xam ne ñëwoon nañ ñëpp teew ci waaye tamit autorités religieuses yi euh, ak kilifa diine yi nga xam ne yónni nañu ndaw ñoom ñëpp nag daal cee teew rawatina nag soxna Asi Kan doomu sayda Mariama Niass ak Alioune Diop surtout Papa As euh, bu Baye Niass waaye tamit ak Sayda Oumou Kalsoum Fall soxna Cheikh Ahmed Bokar Niang ñoom ñëpp nag euh, ñëw nañu teew euh, ñu leen di gërëm di leen sant ci turu euh, Baye Cheikh Fodé Diakhaté ak yaayam bi ko jur moom tamit gërëm na yaayam ak présence su yaayam tamit nee na sant na ko bu baax ndax bu gëstoo gis yaayam xelam dafa gën a dal Mohamed Kébé moom tamit ca Ndofane moom gërëm na tamit kilifa diine yi ñëwoon ci gàmm googu nga xam ne moom la doon amal foofu moom gërëm na ñëpp sant na ñëpp kilifa diine yi ak autorité yi ñëwoon teew moom Mohamed Kébé nee na wax dëgg yàlla sant na ak santaat waa Ndofane ñoom ñëpp ñëwoon ci gàmmu gi macha allah dugg nañ ci bisimilahi rahmaani rahim gën ci alhamdulilahi rabbil alamin waaye mbokk yi tamit ñu am mbégte ak contentement bu mag ci maman Grace Ndiaye ak madame Cissé Bintou Diop madame Diallo faatu Bintou Diop nekk ci HM5 bintu Diop madame Cissé ak Amina Cissé ca Layène Maymouna Cissé madame Diop docteur ak Nasera Diaby madame Guèye ñooñu ay fan su mbay nañu yóbbante woon ci El Hadj Abou Bilal Papa Guèye DG kilifa com point com sama xarit la borom meuble yi nekk ca Sicap Mbao séeram di ajaratu di Adja Diagne yàlla ko yàlla defal jàmm moom Papa Gueye gi kilifa la boo mag boo xam ne mu ngi ci réew mi di consommer sénégalais defar ay meubles yu baax di di di di di liggéey liggéey bu solo moom ci boppam nee na ma incha allah Kouthia sa plateau bi yëpp dinaa ko modifier dafa la plateau indi la ay photos yu baax ñu koy ñaanal loolu nga xam ne moom la bëgg sumb yàlla ko yàlla eggali Papa Gueye daal ñu lay gërëm yàlla bàyyi la sa chéri sa capali booboo di Adja Diagne yàlla yàlla dëggal seen diggante ma nga ca Sicap Mbaaw borom meuble yu baax yi moo baax de kii moo goro yàlla ko yàlla fal jàmm joyeux anniversaire à bébé kajaa Sow ca France xale bi ci boppam moo woon nijaayam na ko dama bëgg tonton ku ma ko muy bébé Kadiatu Sow nekk ca France turandoom Kadiat euh, Kadiatu Sow moom tamit ma nga ca Italie yaayam di xadi soxna ñu ngi koy nuyu ca France papam di Baba Galle saw nekk ca France ay magam ak ay raxam di Mamadou Moustapha saw ak Serigne Saliou saw ak Aminata Niang Sow ñu ngi leen di nuyu ñoom Oumou Awa Fat Sow Maodo Malick ak ñoom Mamadou ñëpp ñu ngi ñaanal xale bii di euh, bébé Kadiatou Sow fan bu gudd ak yu ram ak toute l'équipe de Kadish Moda ñoom benn ñoom ñëpp ñu ngi ma di nuyu ah Mafal ñu ngi koy nuyu bébé Maman Diaw bébé Raki Saliou euh, Euh, Serigne Thioub ñoom bébé Tabara bébé Binta ak mère Nene euh, Pape si ñoom ñëpp ñu ngi souhaité euh, bébé Kadiatou Sow ca France joyeux anniversaire xale la xam ne da ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram soppeeku caala waaw tamit maire ay Ami Diop ak groupe non stress ay maire yoo xam ne non stress ñoom seen yoon nekk si ñoom ñoom li ñuy dund daal mooy bànneex di seetaan Kouthia Show teg seen attaay duñu jow duñu def dara maire yii ñoom mair Ami Diop sopp Kouthia nekk ca Pikine ginnaaw raay goro ci Cheikh Fodé Diakhaté ak ñoom Sali Jaxate yaayu bébé Yacine di nuyu tamit sama sama xarit sama jigéen di Seynabou Diouf soxnay Baye Cheikh Fodé ak Ara Diouf ña ca Pikine ak Gambien yi nga xam ne ba ñu ñëwee ci gàmm gu ba tey ña toog di bégee li nga xam ne nag mooy gàmm gi ba tey woote liggéey clôture université islamique de Touba ci ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ak Serigne Amdi euh, Khady Fall euh, di xalif Serigne euh, Assane Fall jullit yëpp ñu leen di woo ci liggéey boobu képp koo xam ne daal maçon nga ferrailleur menuisier ouvrier na ñëw ci liggéey boobu ndax Serigne Touba moo ci woote même nag même communiqué bii nag ci ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ak Serigne Amdi Khady Fall xalifa Serigne euh, Assane Fall taalibe yi ñu ngi leen di woo ci wàccaayu euh, koor gi ajuma bu nekk nag dañuy jële ay ndogu dem yóbbu ko ca kër Serigne sa ca kër sëñ bu mag ba te ñu koy togg ay nag ay xar ay gëlëm ay picc ak ay pitax ak ay ginaar ñi koy togg sombi nañu lekk xam nga ne loolu doy na waar de togg ginaar ba mu ñor nga yàkkal ko ba pare yow nga ëbbatu lekk sombi xam nga ne loolu da ngay dëggu dëgg pour mun ko def waaye nag sa néeg ci woon ak àjjuma bu nekk nag dañuy jël xéewal di ko yóbbu képp koo xam ne am nga ci sa doole da nga ko ci def tamit lii tamit ndigal la boo xam ne euh, boo ko ci defee sa doole doo ko rëccu waaw doole gi rek war a kattan gi rek ak euh, xéewal gi boo ko defee doo ko rëccu Cerno Souleymane Diallo ak Cerno Hadaran Demba Diallo Ceraneru ak Cerno Mouhamadou An Salatu ak Cerno Ibrahima Ba nekk ca Warafonde ak Amadou euh, Dawa Diallo Ceraneru ak Cheikh Niang nekk maire bu As ak Baydi Ba maire bu Gounass ñu ngi koy nuyu de la part de Kumba Kumba euh, Lam ñu ngi nuyuwaat encore madame Ben madame Ben di suñu suñu séeri koko di Marguerite Yaay mboot moom mooy séeru Ben Ben nag moom mooy géeralu Karim Wade bi ñu ngi koy nuyu tamit ak euh, soxnam bu baax bi nga xam ne tey dafa ñëw seetaan si émission Kouthia Show Kya Diop tamit ca Mbour ñu koy nuyu moom tamit mu ngi toog seetaan si Kouthia Show mbokk yi Jibi Jaan ca France ak soxnaam Kiné Mbaye samay soppe nañu léegi nag xam nga ku ñu seeti kii di ñëw nii mooy Mamadou Lamine Sow dawalkatu avion la woon xamul leneen lu dul dawal avion avion moo ko intéressé woon bañ jox ko direction de l' aviation civile na nag mbubb yi aviateur ba sànni fële sol yëre <laughs> politicien ba nee na Macky Sall bu soobee yàlla bu passager yi yéegee ci vol bi vol bi war a def destination deux mille moo leen di yëpp attachez vos ceintures destination 2019 pale balay wàcce gars yi ñu xool ndax loolu en tant que pilote ndax mën na ko ak nu mu koy pexe Mamadou Lamine Sow e moom la ñuy seeti borom sàmm jaaraama eh, jaaraama jërëjëf jërëjëf yéen ñëpp jërëjëf min ko Maodo Lamine Sow eh, je suis content bii c'est ma femme man politique musul intéressé man eh, dawalkatu avion eh, ma leneen lu dul dawal avion eh, soo gisee ma dugg ci politique c'est parce que le président Macky Sall dama xam ne dafay def destination deux mille dix neuf et il a tellement de projet kila a fait et li ñu ko mën a dimbalee mooy fexe ba mu atteindre objectif am 2019. waaw waaw. bii c'est madame suma soxna la waaye suma assistante la tamit moom xam na man affaire caaxaan duma ci dugguma ci dawal avion rek mooy suma métier donc si j'entre en politique. Uh-huh. c'est pour aider le président Macky Sall à atteindre son objectif. Et partout où je passe, c'est mes amis qui m'encouragent et qui me poussent à aider le président Macky Sall parce que dëkk bi ma jóge Saldé Bokinadjé dëkk la boo xam ne tous les Halpulaar qui sont des parents des amis m'ont motivé à faire la politique pour aider le président Macky Sall. bu fekkee da nga jënd billet avion pour dem Màkka war a France ak fu munti dem soo jëndee billet bi ba pare dem aéroport wane billet bi ba pare ba jaar fi nga war a jaar yëpp lan mooy des dugg ci biir soo duggee ci biir ba toog lu ñu lay wax attachez vos ceintures bu ñu attachez boo ceintures lu ñuy wax l'aviateur vous prie de se mobiliser pour destination à Paris war a Màkka léegi yow sa bakkan bii kan moo ko yor yow ak yàlla kon su ma dawalee ba egg ci jàmm yàlla la waaye ñii ma yëpp tamit pour seen xel dal mooy fi ma leen jëlee yóbbu leen fi ñu jëm si sama métier bii may def dawal avion si la bëgg a yëpp ay client yu APR ak des sénégalais sympathisants pour un projet atteindre l'objectif de président Macky Sall bu ñu duggee aéroport ma dugal leen ci biir ñu ne attachez vos ceintures ah. destination palais noonu lay demee départ Dakar destination palais wolof ah. eh, bi taxu ko ñor ah. eh, je vais laisser sama jabar sama soxna assistante mu wax ci halpulaar ko foofu bandiraaɓe message de président Macky Sall uh-huh. mais man xawma leneen lu dul dawal avion en fait nuy naa leen ñii ñëpp jaajëfal leen bu baax a baax mais damay ñëw ci alpulaar puisque ñun ay alpulaar lañu te ñun loolu la ñu nàmp te sama jëkkër ji ku ko gis xam ne alpulaar la te ñun dëgg rek lañuy dem ci dëgg rek la ñuy la la la ñu xamee ba tax na moom ba ma takkee ba tey ñëpp xam nañ ne ku teey la te ku dal ak ku teey rek moo mën a dawal avion ndax dawal avion dafa yombut loolu nag boo ko déggee dama koo bëgg a ñëw indi ko si Haalpulaar mooy bandiraaɓe tedduɓe heediɓe onon fof mbir sikki onon nganndi joom ngallam oɗo min paari ko haa pale caggal nde ngannduɗon hade ma dognude avion ko ma teeya sa teeyana wa dognude avion tessanate avion o wiya ko attaché vos ceinture ha jagoɗa ha poɗon waɗe départ ɗum ɗon fof ko caggal makko caggal allah so tawi allah so tawi allah hoddiri ha enen fof ba di euh, attaché vos ceinture en jeehi ngol lawol ko destination palais paɗen caggal ko loolu noonu nga dégg ma wax mooy maa ngi sa ginnaaw mooy man mi nga xamante ne maay sa soxna maay sa assistante xam naa ne yow ku mës a dal nga ndax boo dalul woon doo dawal avion te ku dal rek moo mën a dawal avion Euh, debbo bi tout ce qu'il dit c'est maakooka avion boo koy dawal doo nekk caakankat xamoo ko ngay nelaw ba sa xel bi dal waaw doo gëmmentu doo gaaw a mer waaw nekk nit ku sérieux billaay ku objectif ku concentré wu kon meew bu dang warul yoroom boo kasee bu dugg ba toog. waaw xam nga nga ay nit ci ginnaaw. waaw ay bakkan nañu. waaw waaw yow yaa yor seen sécurité ginnaaw yàlla. ñooñu wóolu la. ñoom ñëpp wóolu la. Mhm. muy jullit muy chrétien ak ku munti doon yaayi tax ñu egg fu ñu la kon confiance boobu nga xam ne moom la nit ñi am. Mhm. te xamoo leen. Mhm. waaw ñi nga xam ne xam nañ ma su ma leen bëggee yóbbu ci président Macky kay. en tant que aviateur kay kon xal jeeg na. loolu day yomb naawal Hmm. am nañu mbégte ak contentement bu mag di ko nuyu moom Papa Gueye DG kilifa point com euh, di nag euh, grand entrepreneur euh, di yëngu ci li nga xam ne moom mooy meuble ñu ngi koy nekk ci Sicap Mbao ak séeréem di Adja euh, di ko nuyu tamit di ko ñaanal fan bu gën a wér gu yaram madame Guèye Adja sama xarit ak papa sama xarit di ko ñaanal tamit yàlla may ko fan bu gën yaram ma yëngu ci li nga ne nag moom mooy fexe ba xale yi am emploi yoo xam ne du ñu génn ci réew mi du ñu jël gaal gi te nag di liggéey loo xam ne ku leen gis naw leen moom mooy ci numéro un ñu mel ne papa moom mooy société bu yoo xam ne du xarit la moom ci boppam moo ñu promettre ne incha allah dina ñëw ci plateau Kouthia Show defar ko ba mu yànj yàlla yàlla mottale yëpp ñuy nuyu tamit bu baax famille ma sekk a Amina Niass bàjjen Fat Ndiaye bàjjen Euh, Fat Ndiaye euh, Fat Ndiaye Badara Tall Ndeye Penda Thiam ca HLM 6 Assou Ndiaye ca Istanbul ak magget sek ca France Dia Fall xaritu ya euh, Yaxara moom tamit mu ca Anne Marinas les dames de valeur ñoom ñëpp ñu leen di nuyu le 5 juillet Pape Anne delloo njukkal Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ak jaajëfal jërëjëfal Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu anhu ca Grand Théâtre à partir de 18 euh, heures lay doon kooku ñëwagul waaye dañ koy teel a bant bant euh, di ko bantwaat ba egsi ndax euh, suñu xarit la ki nga xam ne moom mooy Pape Anne Mor Lay PDG suñu business point TV chéri Oumy si nekk ca zone A ñu ko nuyu oustaz Modou Fall bi nga xam ne moo nekk ca Italie di def waaraate yu am solo yi ñu koy nuyu di ko gërëm di ko sant wax dëgg yàlla di ko ñaanal tamit jàmm ak xel bu rafet kooku taalibe sëñ Babacar Sylla yàlla na ko yàlla defal jàmm moom oustaz Modou Fall nekk ci euh, Italie dafa def waaraate yu am solo ba fu mu ne nii boo xoolee WhatsApp yu bëri da nga ko ciy gis ndax wax yu am solo yi nga xam ne ku ko dégg di nga ca gis sa bopp mu ngi koy ñaanal fan gudd ak wér gu yaram ñu ngi koy nuyu ca Kaolack Assou Bambara ngi koy euh, avertir ne ay mbokkam nañ ko ñëw jël si parce que Assou Bambara bu buñ ko bàyyee dakaar gii Dakar dana yàqu Astou Bambara li mu nekkee ci dakaar gii ñaaw na trop man gis naa nit boo xam ne da ngay xëy lekk soow d'accord soow nga lekk mun nga ci teg ay fruits parce que ànd nañu mu nekk salade de fruits mën nga ci teg bu la neexee cere parce que ba tey cere day ànd ak soow loolu mën na nekk mais Astou Bambara suba teel la njëkk lekk maafe boo xam ne maafe vendre nañ ko togg mu xëy ndékkee ko ñu demaat ba deux heures assu Bambara teg ci dëxin ñu demaat ba 3 heures ab su bamba teg ci fataaya ñu demaat ba 4 heures a su bamba teg ci euh, cere baase ñu demaat ba 18 heures ab su bambara teg ci pizza ñu demaat ba 20 heures ab su bambara teg ci fonde ñu demaat ba 20 heures ab su bambara teg ci laax ñu demaat ba 21 heures ab su tegaat ci ñaari kopp ñu demaat ba 22 heures ab su bambara boole sombi bi boole koog ngalax ñu demaat ba 24 heures ab su bambara nag ci ba bi ma bàyyi ab su bambara mooy bi mu jëlee mango def ko sandwich ci mburu jël xooxu mango ba ci boppam daal koy sànni mango bu ñu sandwich ci mburu ba ma juddoo sama ndey ak sama baay ba tey musuma koo gis kon Astou Bambara bu delluwul fii nga xam ne mooy Kaolack ay mbokkam dinañ ko seeti Astou Bambara nag li muy lekk nag tayu ko sa doom laa rus mais sinon bi deehi ma la li nga xam ne moom nga fa jot a def Astou Bambara ay Astou Bambara ay waay waay waay monsieur le maire de Kaolack kaay jëlañu Astou Bambara Astou Bambara ngi yàq Dakar kenn asu bambara ngi yàq Dakar te ñiy saraxu ñi nga xam ne dañ ceeb asu bambara ñoo lay jënd ceeb nee na ceeb bu ñu sarax a saf waaye asu bambara ngir yàlla waaye asu bambara ñibbi Kaolack waa Kaolack dimbale ngir yàlla ci bambara waxoon naa ko dinaa la toroxal kon asu bambara bu ngi noonu mbokk yi ñu koy ñaanal yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram waaye amicale des jeunes mosquée de Darou Salam euh, conférence bi am euh, euh, ne mooy yëmbal parrainage ba monsieur Samba Sidibé Kouthia dañ ko ci woo thème ba nag ñu ngi koy waxtaanee l'islam face la crise des valeurs imam yi nekk ci quartier bi kenn ku nekk da nga yëkk ci kàddu jox sa yi nekk ci quartier yi yoo xam ne ñoo lëkkaloo ca yëmbal kenn ku nekk nag da nga li nga xam ne moom nga xam ci thème boobu nga xam ne dafa am la crise des valeurs dañ ci waxtaane li nga xam ne mooy jeunesse bi mag ñi xale yeeg cole nii yëpp yoo xam ne day jëmale euh, euh, euh, diina gi kanam rek dañ ko waxtaane waaye lépp loo xam ne da ko yàq war a tolof tolofam danañ ko fa waxtaanee ba xale yi mun ko moytu mbokk yi une fois encore ñuy gërëm bu baax nag ki nga xam ne mooy Baye Fodé Diakhaté ñu ngi koy gërëm de ko sant ci li nga xam ne moom la defoon ci treizième édition gàmmu bi waaye tamit Serigne Fallou Mbacke docteur ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di ko ñaanal jàmm yàlla defal ko jàmm ak ay xéwal mbokk yi dentigel bi ak l'écran bi ak madaar bi ñoo leen may seen émission Kouthia Show léegi nag Karim Wade ci boppam ba mu wàccee fi nga xam ne mooy Versailles ba wax ak Tata Aida Diong ba dellu léegi nag xam nga lan mooy problème bi Karim Wade ci semaine bii ci biir koor gi lay teg tànkam senegal moom nag papam nee na ko balaa ngay dem il faut nga taxaw wax ma carrément boo demee ndax la ngay yëngal gësëm papa ji nee na ko bul raay mbelle bul neexal bul négocier na tàng na sa na saxaar Karim nag avant muy dem senegal yi nekk Versailles ak France yëpp taxaw nañ ci buntu kër gi di ko déglu xool ndax ni muy defee noonu lay amee war du amee noonu waaye mbokk yi ah mbokk yi loolu dana neex looti saw lii yow laa ko may ak Zakaria saw lii yow ko may di ko may tamit ki nga xam ne moom mooy Xawaa Njaay di madame saw nekk foofu ak Rama Ba ca Kaolack de la part de Sira saw ku sopp ku caala maman Diop nekk ca Kaffrine ñu ngi koy nuyu Lamine Touré militant PDS la nekk ca gin gineew nuyu nañ ko Mouhamed Mezoun responsable commercial grand maître tailleur bi di Mbaylaay couturier ca Rue Euh, ca 9 euh, rue euh, Mas Joxaane nuyu nañ ko bu baax waa tamit màggalu Serigne Massamba Mbacké tey la di ci ziare Serigne bi xalif bi mi nga xam ne mooy Serigne Moustapha Massamba Mbacké yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram dëgëral ko màggal gi daal ma ngay amee ca daaray Karim ca Touba ñu ngi ciy ziare suñu papa di maître Madické Niang nga xam ne sëriñam tey moom mooy def màggal bi nga xam ne mooy màggal Serigne Massamba Mbacké yal na yàlla yokk leeram waaye di di ziare tamit Serigne Moustapha Massamba Mbacké yal ko yàlla dëgëral ay cëram bàyyi ko fi yàgg mbokk ca Versailles dañuy jëm seeti Karim Wade ak papam ak soxnaam mi nga xam ne ñoom ñett ñu xool seen entraînement balaa ñuy jàkkaarloo élection 2019 ca Paris la nar a xew mooy jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi kontaan ci sama doom Karim bi mu demee Qatar yàgg fa buuru Qatar ne ma candidat du nekk célibataire te Karim a bien choisi xam nga ne kii princesse la te princesse boo ko xoolee xam na princesse la neex a bëgg bu ma maase na moom jamono du ma kon dafa mel ne Karim tànn na loo xam ne tamit neex naa tànn pale pale soo fa nekkee da nga fay dugal ku war a dugg palais comme que Karim mii balaa muy dem Sénégal laaj baatu askan wi fii la koy tàmmalee ba mu saf sàpp xam ngeen ne kii baayam baayam naar la ñoom ay katiri nañu ca Qatar diggante Dubaay ak Qatar ñoom seeni ay mbokk fa nañu juddu kii mu toog buur la mu bañ toog buur la ndax Abdoulaye mooy baayam Abdoulaye ak buuru Qatar ñoo bokk ndey ak baay kii reen la bu ko Sénégal bëggul Karim bëgg na ko te Karim bu toogee Sénégal sax nekkul président mës na mën na dooni roi de Qatar ndax jëmm ji te roi moo ëpp doole président léegi nag euh, madame thank you very much so my children my yeah, my yeah. my my xam nga ne néew ma ne néew ma ne soxna Macky rafetul waaye boo gisee nen nen nena ngi léegi nag Karim waa Versailles ñëpp a ngi nii toog tu vas faire ton ils vont vérifier si tu dois partir ou non. Si le discours n'est pas sot, tu ne quitteras pas ce pays en fait. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. mbokki Sénégal. Macky nekk ak Nakari. mane Gueye jàkkaarloo thank you thank dara du sedd nàkkoo tàngal baamu saf-saf Très bien. Encore. Mets les mains, Maki, Bulma, Ragal. bàyyil ma jàkkaarloo bàyyil ma jàkkaarloo ak yow may leen ma mele ma kooleen yii yii mooy première dame mu xool première dame Malema, Malema. Malema toute. Maki Bell. Bangal Bër ak Mané. Eh, eh, eh, bu leen ko ree dem pour uti bu leen Macky bëgg bëre bañ bëre ak man nee na nee na bëgg bëre bañ bëre ak man loolu lay wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf léegi balaa muy dem dama leen di laaj ndax kii pare na pour dem wala parewul pour dem est-ce que ni mu waxee nii Macky dana ko ragal bu parewul day fanaan ada est-ce que pare nga pour dem est-ce que ni mu waxee doy na leen parce que parce que bugguma mu dem ñu naan Karim donnul bàyyi ji est-ce que wóor na leen li Karim wax doy na leen mu dolliwaat ko ngeen dégg tu recommences e e Voilà. Ouais. ça. oui nekk ak. Nakari voilà peut-être malema Dara Doucet. Très bien. Dina ko tàngal ba mu saf saf. Très bien. Ouais.

Mets-le main. Mets-le main, mets May leen ma première dame. première dame nee na première dame ngi nii. kii mooy première dame. thank you ok. may leen ma tuy première dame. est que du première dame li mu la jege moo tax nga mel ni lu tiit te te pousse ni ma

Bore Maki Bog Bore Bañ Bore ak man. Très bien. jërëjëf léegi yaakaar ne baax na jërëjëf mën naa dem waaw très léegi nag c'est fini ñu ngi leen di gërëm di sant lii la am parce que li ngeen koy motiver moo tax mu jàkkaarloog ki nga xam ne mooy Macky Sall ooy Karim non c'est bien il faut nga nag nga miim sa jabar ji parce que soo ko miimul day am trac waaw gis naa ne bi mu éloigné amatoo trac kon dend bi pour l'instant dañu koy dangay danga may bàyyi moom fa ay fan rek Karim tu me laisses avec ta femme quelques jours oui c'est c'est